wan ko na ko baal ma li xewoon du xew xewati ñaar moo mun a am mu may la chance nga takkaat ko ngeen sëy walla mu may la chance ngeen génnaat ci génnaat bi nga prouver ko que li ko doon naqari mu di ko jooy loolu amul ngeen génn benn un ci respe mbokk yi la mere woon ñëwaat di la gisaat ci kër gi di wax seen mer wax ki lu mu fiy def waaye nag katt ndeyam génn kër gi waaye imbécile la doomaraam nga ne tekk won ko na ko yow ku am dal nga ki la saaga woon bu mer mi giifee dafay rus ne saaga na la mu jéggalu la kersa ñëwaat mbëggeel amaat foofu am na bunt bu faj nit ñi di la gis ngay dem di ñëw bu weeru koor jotee nga gàddu sa tuuti nga indi suukari koor ngeen ànd julli ndogu wante ak ku nekk dem korite bi jot nga ñëw baalu ak ku nekk dem dafay fekk mer yi giif niin saaga yi wàññeeku na li naqari woon famille bi yépp am nga time to for reconciliation maanaam am ngeen pro beaucoup de temps pour ngeen réconcilier maanaam ngeen juboo parce que temps am na mais sénégalais dafa naa fekk naa fekk goo xam ne dañuy toroxal jigéen ba mu mer toog ñu ñëw dajaloo benn waxtaan ñu ne dafa war a jeex su ko defee ñu ne waaye yaay baayam Cheikh Ahmed wax na nag sa kilifa la waxal waaw mais wax bi du waaw mais ndax conscience bi wax na waaw ndax amour bi wax na waaw ndax confiance bi wax na waaw ndax yaakaar gi wax na waaw ndax xel mu dal ba mu war a am ci kër ga wax na waaw ndax kuur gi nooy gim nooy naan laaj ne yuus ne yasar wax na waaw ça prend beaucoup de pour wax waaw dafa soxla temps pour wax waaw mais dañuy dajaloo surtout boo dee murit nag ñu indi la benn setu sëñ Tuubaa mu ñëw na waa sëñ bi xam nga ba mu demee géej gi eh, bi mu ñëwee daf ne baal naa ñëpp <laughs> exfirli li jamil wara mais kooku sëñ la sëñ Tuubaa la waaw xam nga yonentu dafa jàngale woon <coughs> makaarimal axlaax daf ne jéggalal ku la tooñ xañ non non non yonentu la dem xotti woon dënam bi génnee fa luy mer bàyyil ma sëñ Touba ak yonantu bi nga ñëw ci nit ki la muy sentir moom mhm. nga waxeek moom foofu te tegal ma bàyyi ñas ak yonantu bi ak Seexu Tijaan yal neen la yokk seen barke ñoom ñu baax leen waaye bàyyil ma leen foofu rek lii du mbiru bàyyi ñas du mbiru faydu bi sentiment la gis nga bu deux ans yi jeexee troisième année bi ngeen waxtaanaat ensemble nan ngeen mun a dundaate ba pakk yi ngeen doon fàdd ci yoon bi du fa nekkati làmp yu lëndëm yi ngeen daan tëdd du ngeen fa tëddati nit ñi ngeen daan dugal seen relation ak ni ngeen leen defee ngeen fexe pour fixe ko benn un an wala six mois gis nga su lii lépp baaxee bés boo jëlee sa guru demaat pour takk jabar joo fase woon wallaahi doo fa dégg wax yu ñaaw jigéen ji buy ñëw di sëy siwaat du tiit du ragal yow góor gi buñ la koy delloo doo ragal parce que fii ku fi tas ak nit waxuma la tas sax waaye génn rek relation relation yii nii rek bu naqaree rek euh, wax bu ñaaw am da ngay am problème ak sa gel mu dem yàq la muti musiba boo xam ne weñ bu ci dal te sëyu fara gel rek la dama la nopp nopp naa la yaa neex ma la ne saa yi la neexee mu dëñ mais problème bu ci amee laa ilaha illallah am na ci góor ñu mel ni man gis nga bu ñu fenalee jigéen ba ba ko da fa ne jigéen jee gën a bon ci àddina mu am ñu bon ñoo xam ne ñoom bu leen leeree ne mënatuñ laa jot dañ lay duulal ne dañ la doon tëddee caga nga fekk musuñ laa xam maanaam góor ñu bon ñu mel ni man dañoo bari góor ñi bon ñu mel ni man Cheikh Ahmed Cissé moo bari ci dëkk bi bu ñu jotee ak yow fu ñu toog sa der du baax buñ la mënta am yàq sa der sosal la yàlla buñ xam ne nag góor gu la mën góor gu leen ëpp njëriñ moo ñëw buñ la waxalee rek nga bañ waa kañ la góor daan yàq deri jigéen bi jamono daan baax du am mais léegi imbécile ak imbe yu mel ni man ñoo bari ci dëkk bi donc ça c'est normal mais am na jigéen ñoo xam ne aussi ci génn rek daneen la saaga ndey daneen la sosal dineen la tuumaal dineen yokk say wax duñ la suturaal dinañ yàq sa der mais loolu mënul nekk te warul nekk aussi mënul nekk te warul nekk donc Sénégal boo gisee sëy yi du ñu yàgg ñetti raison moo tax ñetti raison déglu leen bu baax benn bi ci njëkk mooy diine lislaam mooy tas sëy senegaal ci nakk fa wax ji nekk ñaareel ba génnantu bi farantoo gelantu bi ñetteel ba impatient manque de patience waa lan moo tax ma wax diine l'islam te l'islam di solution man ma toog ne lislaam moo tax suñ sëy di tas ci naka lu tax ma wax loolu mooy ne dañuy wax ne jullit leen te duñu jëfee lislaam lislaam nangu na doxaan jàngal na la nu ñuy doxaane mais yow soo doxan da ngay teggi lislaam première fen bi rek ngay dugal lislaam dama laa bëgg te yàlla tax fekk bajo nga bëgg ku la nàmpal nga bëgg koo fowee nga bëgg waaye yàlla nga doxaanee dama laa bëgg te yàlla tax ba pare nag iri jigéen ji ci na la bëgg te yàlla tax bum la laaj dara lislaam lépp loo ko dugal fenn sos ko dafay yàqu ndoxaan ci lislaam ànd restaurant bokku ci ndoxaan ci lislaam niin miinante bokku ci ndoxaan ci lislaam fóonante bokku ci ndoxaan ci lislaam maccante kooya ki bajoo ki ween ak cuus bokk ci mbar mba ndoxaan ci lislaam kattante bokku ci doxaan ci lislaam wéet bokku ci waa neen toog nag xool suñ bopp ñaata nit ci ñun ñoo doxaan pour takki jabar ci lislaam ba pare dem restaurant ñaata nit ci ñun ñoo ne dañu bëgg te yàlla tax di ba pare iri foon nàmp te ñu ne kat lislaam la ñu bëgg dañuy takk jabar ngir yàlla dañuy jaamu yàlla mais cosaan bi rafetul kon bu lislaam ñëwee sëy ba day tas mu fekk nag ñuy ay jullit ñoo xam ne jigéen ji au lieu ñu jàngal ko sartaay sëy mooy bul génn sa kër gi te tàgguwoo sa jëkkër bul dugal ci kër gi ku ko neexut bul génnee loo ko tàggool muy benn saa yu ko soxla aajal bu ko tardel bu ko aaye sa bopp boobu itam du ko xam léegi dañuy toog si awma envie soo amul envie c'est une viol déedéet jabar ju amul yëg-yëg sa jëkkër kat la du viol lan moo tax ma wax du viol waxuma ci sartaay tubaab yi dama lay wax ci diina l'islam ak xel Je suis défenseur de femmes. I am a woman defender, but I have to be straight with you so that you can understand exactly what I mean. tey da jàng ba pare tey rek ngeen dégg lislaam tey Cheikh Ahmed boroom xam-xam bi moo ñëw ah. da nga jàng ba pare nga dem uti liggéey ñu signal la contre ne la huit ba seize danga war a liggéey si. nga xëy ba benn bis ne man aw ma envie liggéey léegi boo ma liggéeyloo da nga ma forcé déedéet du demee noonu di yow yaa jëloon engagement que da ngay liggéey ñu signé la contrat nga am lu leen tënk bu la neexee dangay dem liggéey parce que yaa jël engagement bu yàlla ji di taw da ngay liggéey ndax yaa jël engagement même boo feebaree dangay ngay tàggoo ko dama feebar mënumaa liggéey. te loolu ñu nag àdduna rek la ak tubaab bi yéen ñu nekk Amérique you can attest what I am saying. xaaral may suma waa ji ndax ma ko what the fuck. da ngeen di toog rek because you don't have feeling to go to job ngeen toog ci kër gi because you don't want to work it doesn't work that way you know what saying hmm? léegi comme yéen seen liggéeyukaay ak tubaab bi ñemewu leen ko ngeen toog fii seen diggante digganteeg seen borom ngeen jël engagement insisté leen ci suma sañse bi hmm? insisté leen ci sañse bi yooyu daf may neex ngeen ma naan sëñ bi sañse na xam-xam bi di génn c'est que xam-xam bi su ma wengalee mbaxane bi ci lay wàcc di tuuru hmm? léegi yow da nga jël engagement sa diggante ak sa borom nga ne ko yàlla mboolem góor yi àdduna suur naa leen Cheikh Ahmed mii rek laa bëgg yàlla na la tàggul say kilifa wax ju doyut ma yow kenn nga indi say kilifa yàlla ne doyut ba tey indil seede nga indi seede mu ne ok comme nag Cheikh Ahmed nga bëgg léegi Sabajo bi daf ko daf daf lay jox price to legalize the vagina itself wax ji en fait not about being rude or naughty or or vulgaire islam laay wax dama bëgg xam. léegi nag pour bajo bi ci boppam Cheikh Ahmed dafa war a kat yàlla ne na la jox na la na ko na ko na ko na ko ci joxe ak right na na na na na am insurance loolu mooy loolu mooy loolu mooy can pour bajo bi nga jël engagement léegi nag yàlla mu ne ñii ñooy seede mbokk yaa ngi nii toog jàng leen alquran ngeen nangu ne sëy bii maye ngeen ko nga nangu ñu nangu waaw yow ñu cen sa bajo nga dem tëdd nga ne noo awma envie boo ma laalee viol la yabaate la ak dul rek du viol de bi ma leen joxee exemple ci liggéey nangu ngeen dangay gis ku eewu tayal mais day liggéey because you sign a contract to do a work you have to do it waa léegi nag nan ngay nangoo sa contrat eh, ay sa caam miital ma ko dugal numéro tigo bu bon boobu miit ko wala nga bloqué ko mu génn fi bu mu ñëwati waaye léegi nan ngay siñee contrat dem liggéeyi parce que yàlla jaa ngi taw da nga tayal da nga nangam da ngeen ko bañ ba da ngeen di def réveil yi réveil ngeen di def seen téléphone yi pour mën a yeewu liggéey waa contrat bu ngeen am ak yàlla nag ngeen ne parce que da nga mere sa jëkkër dafa am lu la naqari amoo envie warul la laal du règlement de jigéen ju fi aaya sa bopp sa jëkkër di wit yoo consent dama bëgg mu leer la ne am nga bàkkaar te bàkkaar bu rëy la nag man li may digal su ma nandi bu sa jëkkër deful lu ko war def ko nii rek bàyyi ko boppam moom moom lii la moom jox ko bii defal nii rek jox ko bii jox ko ko moom mais su fekkee ne nag def na li ko war neexal na la acum ah boobu moom boobu moom da koy am ni nga ko bëggee yéen xanaa xamul leen ne mën ngeen a toroxal jigéen góor te du ngeen ko aye seen bopp bu dee bu dee ay nandite ngeen mën nga téye góor di ko cotti cottee te ayewoo ko sa bopp doo am bàkkaar ah ci naka bu la okkee nga bàyyi defaral sa position rek tëdd ci lal bi bul yuux bul onk bu ko raay bu ko yëkk su paree nga jóg ndànk raxas ba mu set nga ñëw tëdd mais bis bu defee lu ko war ah ah doom ndey doom <laughs> ma ne ko doom ndey bi su defee lu ko war nag moom su boobaa dafa am maanaam dafa am foo war a jaare am noo ko war a defee xam nga mais ñëwuma ci loolu te dama leen di wax ci tas boobu dinaa ci ñëw <laughs> yeneen a ngi dégg <laughs> da ngeen maa bëgg ba su ma reyee ngeen ree te du ngeen xam sax lan ngeen di ree fu mu nekk waa léegi li ngeen lan ngeen di ree parce que les les sëriñ den naan nit sourire donc tout le monde va sourire Non, ça ne marche pas comme ça. ça ne léegi loolu muy benn ci liy tax sëy di tas deuxième bi lan laa waxoon pour ma xam ne yéen a ngi topp waxtaan bi dama noon ñettee tax sëy tas wax naa benn bi ñaareel bi lan la su ngeen ko waxut duma avancé li ngeen di déglu ba fàtte li ngeen déglu te damay jàngale boroom xam-xam bu mag laa toog fii di leen jàngal deuxième bi lan la ci lu war a tas sëy ci lu tax sëy yi di tas bu ngeen ko xamul bindu leen ko ci commentaire yi te mille neuf cent personnes kenn xamu ko two thousand nine hundred people kenn xamul ban mooy deuxième ah am nañu ko bind de ok ñaare non dama ne lislaam lislaam ak lan lislaam ci la doxaan bi nekk ci la doxaan bi nekk lislaam ci la doxaan bi nekk non man nag man nag suma daara ji jàngu leen de yéen jàngu leen de yéen ku ciy jigéen dinaa la ku ciy góor dama leen noq waaye jigéen ñi ñoom dinaa leen dinaa leen may xaalis. bilaay suma xel mi waxut loolu suma làmmiñ moo wax xaalis rek bilaay waxuma loolu loolu góor ñi ma dama leen di noq moom moom moom facilement mais jigéen ñi yéen su ma leen jàppee. te ne xaalis <laughs> ba pare yedd leen ngeen dem mun naa bëgg jigéen ok deuxième chose ci li tax sëy di tas mooy ci doxaan bi gis nga man ni ma gisee relation léegi doxaan only teaches you how to divorce maanaam ndoxaan mi daf lay jàngal ni ñuy tase ndoxaan miñ nekkee moo yi di tas because tey dangay gis benn joojo may jàpp ne sëyul muy wax ak beneen góor jàpp ne droit la am ñaari far ku ko ci ne zete mu ne la moi aussi ku ko ci ne dama la nopp mu ne la maa nga gis benn faatu moo xam ne tey lépp lum soxla ci àddina bii la koy faje bii bii bii dina dem ba ubbi bii jox ko góor te soo ko waxee mu saagala ne kooku duma moroomam te mu ngi koy tëddee lu neex parce que moom mentalité am bajo bi du dara waaye moom conscience am mooy dara te conscience am jàppul kii mais sa bajo bu dul dara yow doo dara dangay gis koo xam ne day wéet góor ci ci néeg tëddanteeg moom mais du ko mus a présenté ne faram la waaye nag ci néeg bi moom mën na koo jox boppam waaye suñ génnee mu ne moom kii du faram man dinaa sëy kii xam kii xam na boppam xamul boppam waaye moo lay katt yow waa su jigéen demee nag ba mën a ubbil tànkam kum santiirul mën na ubbi tànkam parce que dafa am dossier bu muy réglé mën a ubbi tànkam parce que dafa bëgg liggéey mën a ubbi tànkam ndax dafa bëgg xaalis ñi ci korit ci tabaski gi passé ñaata nit a ubbi seen tànk ngir xarum tabaski ñu war a yóbbul seen pap ñaata nit ubbi seen tànk ngir sëva ngir ongul ngir ainsi de suite tey tabaski passé na kersa des ci ko am jom léegi nag su fekkee ne jamono ji ñëpp taalibe Cheikh Ahmed Cissé leen ku ci safut làmmiñ da nga réew ku ci réewul yaa ngi góor góorgóorlu ba da nga indépendant financièrement soxlawoo dara teg ci ñàkk nga kilifa ba yow sa conscience mooy sa kilifa xarit sa boo waxee daf la naan jànq defal li nga bëgg rek man de dama laa bëgg loo bëgg rek laa bëgg mais loolu du xarit. xarit da ngay xool mu jël décision nga ne ko lii doo ko def nga insister ci xeex ci ba tojante gémmiñ na ko lii doo ko def mais su fekkee nit ki moom lu mu xalaat yow ci nga koy dimbale mais kon yow lu mu lay doy. léegi boo amee far ngeen génn un mu di la defal di sonn ci yow di la jàppale xoolal du yóbbul këram loo soxla mu taxaw ci nga jàpp ko ak jigéen rek na ko banaa la waa doomu aadama ku ko mënta jéggal nooy àndeek moom doomu aadama ñett yi rekk la nit mën a séq ak moom jéggal ko yërëm ko dimbale ko doomu aadama den koy jéggal den koy yërëm den koy dimbale waa léegi góor gu sonn ci yow douze mois ci teraanga ak sacrifice lu mu am jox la fu mu jëm yóbbu la nga jàpp ko jigéen nga ne ko bàyyi naa la am na suma benn xarit mu ne mu ne diw dama ko bàyyi damay live mais mën nga jàll dem def li nga bëgg a def mu ne diw dama ko bàyyi parce que daf ma fen I just keep quiet I have no word to say waaye benn fenn diw boobu defal na la téeméeri teraanga yow fàtte nga teraanga yi to appreciate waaye benn fen bi rek moom nga jàpp moom da koy bàyyi quoi parce que dafa la fenal benn yoon that is the highest level of ungratefulness one could be ci àddina in my own interpretation Mathieu Carter nuyu naa la borom saloo bu rëy ba ca New York di lettu tubaab yeeg nit ñu ñuul ñi 24 heures sur 24 ku jógee Sénégal amoo liggéey mu dimbale la nga war ko mu dimbale la <laughs> nga feneen ko mu dimbale la nga tooñ ko mu baal la <laughs> moom moom mat kom mu ngi def ay théâtre mu ngi góorgóorlu jigéen ju man góor la yal na yàlla sàmmal ko boppam bi himati Cheikh Tijaani radiyallahu anhu léegi nga nekk ak góor mu di sonn ci yow di la defal ay teraanga mu juum benn yoon nga ne bàyyi nga ko am na ñoo xam ne dañuy toog mu yàgg ah man daal sentiratuma ko man Ablaay moo ma neex Ablaye comment Ablaye moo la pour lan lan moo indi Ablaye ba lay neex ñàkk neex lan moo indi Ablaye ba mu lay neex ak ñàkk neex loolu la xamul léegi nag su fekkee ne jigéen mën na nekk góor di ko gëmloo mbëggeel yow laa bëgg yaay suma lii yaay suma laa di tëdd ak moom te musuta am intention ni sëy ak moom su duggee ci sëyit kooku sëyut xam nga lu tax sëyut xamut the important of commitment maanaam engagement importance su engagement xam ko deuxième bi amul patience su régler lu yàqu gis nga man dama tas tasaat tasaat loolu moo ma jural expérience te lépp boo ko résumé juróom mooy teew impatience ñàkk a teey jéem loo mënut jéem loo mënut maye lu mënta dem maye loo xam ne leer na leen mënta dem nga maye ko ba nit ki jàpp ne lii réalité la day dem fekk du dem ñetteel ba war a jiite sa jabar ak sa kër ci diine lislaam jël lislaam tege na la jël sa bakkan lu neex lu neex lu neex li yàlla bëgg moom doo ko def doo ko wax juróomeel ba nag moo gën a am solo ku tànn jigéen bëggu koo def jabar du dem ko jigéen mën naa doon jigéen te du doon jabar ju baax mais jabar ju baax qualité la xamoon na dégg ngeen ma de ku tànn jigéen pour def ko jabar carte la mën nga gañe mën nga perte jigéen jigéen la isa version yàlla moo koy bind waaye jabar qualité la bu fekkee bi ngay tànn ngaamam yu weng yi sa yoon nekkut ci taatam yu tàpp yi sa yoon nekkut ci da loo background bi mu dëkk yaayam amut sa yoon nekkut ci waaye yow li nga xool mooy juddu bi jikko bi ak melokaan bi ak ni mu dundeek yow bu dee loolu nga xool boo takkee yàlla daf lay suturaal nga dem mais bu fekkee na nga toog ci internet bi gis taati rëy mu xees rafet nga dugg ci parce que nii la mel lii moo la ne loolu sëñ bi boo ciy wut jabar du dem wut ca jigéen di ko bégal mu lay bëggal su defee lu mu war dem nga xam ne kii du jabar jigéen la jigéen da nga yërëm da nga koy sutural da koy dimbali moo tax sëy tubaab day dem parce que moom jabar jigéen la bëgg soo ko ne I want you la xaaw xaay dama bëgg nga tëb mu ne la noo ko bëggee mhm. mais ñun dañuy wut jigéen ba pare di la jox sar si jabar waaw yonentu waxut lii moom takkoo woon koon ci yonentu di sëñ bi dama woon daara ja di yow jigéen ngay wut na la bégal nga bégal ko su la tooñee nga baal ko boo ko tooñee jéggalu ko maanaam jigéen boo ko tooñee yaa ko war a jéggalu bu la tooñee yaa ko war a jéggalu parce que jigéen la ñoom de are always right ñoom saa su nekk ñoo nekk ci dëgg lu ñu xalaat noonu la lu ñu wax noonu la boo waxee sa da leen yuuxu léegi nag man dama daan wut jigéen ba pare ne si laay wut jabar mënta dem erreur la